Eh, jërëjëfati mbokk yi ànd ak ñun seetaan déglu ñu ngi am mbégte gu rëy ginnaaw ba ñu dellu sant suñu borom daal di julli ci sangu-sang yi gërëm waajur yi daal di ñaanal kilifa diine yu aada daal di mbokk yëpp yi nga xam ne jamono ñu ngi wéy daan ak ñun te ñu seetaan boole ci di déglu ku ci nekk fa nga nekk ñu ngi ñaan suñu borom yokk la jàmm ak salaam mbokk yi fii mooy seen cabinet bio rahma bio rahma cabinet la boo xam ni daanaka rek eh, saa su ñoo ngi koy fësal di ko yaatal ngir askan wi. képp ku ittewoo lu bio nga daal di ko mën a am loolee moo tax ñu ngi fii ci Tëngéej Sonadis bi ci wetu pharmacie Astel su dee yaa ngi jógee Dakar soo ñëwee ba eh, Tëngéej nga laaj laajte Sonadis laajte oto yi dem Thiès ak Mbour fi ñuy taxaw te tey ndaw yi soo ñëwee ba foofu di nga gis li nga xam ne moo di pharmacie Astel soo ñëwee ba ci pharmacie bi rek ci koñu pharmacie bi di nga gis benn paa boo xam ni moo ngi toog foofu di jaay orange ak yu moom boo ko nee cabinet bio Rahma laay laaj dina la gis nga étage bu bee ngay seen à soo fa duggee premier étage à droite foofu mooy cabinet bio rahma muy étage bu weex bi kon yow mi seetaan ak déglu te saa boo ñëwee rek ba foofu mën nga daal di daagu nànk ñëw yër xool li nga xam ne moom la seen cabinet bio rahma di defal boole ci ndax lu baax lu ne des koy wane yaatal ko moo tax ci yenn gox yi soo fa demee di nga gis askan wee ngi fësal di yaatal li nga xam ne moo di ay produit bio rahma mbokk yi ñu siiwut ci youtube bi ci tiktok bi xam nañu yëf waaye baax na yenn say ñu daal leen fàttali yenn yi jukki ci lenn rek ci ay produits ngir askan wi ndax mënuñu wane lépp fii waaye dinañ jukki nag ci yenn fàttali ko askan wi ngir bu ñu itteewul lu ni mel ñu daal di mën daagu nànk dem ci chaîne YouTube bi Rahma nee naa leen bii mooy fa forma fa forma complément la boo xam ni 1 kilo cent askan min na ko fa forma complément alimentaire 1 cent mu muy jar 8000 francs nee naa la fa forma ñi ko jot jël xam nañu yëf yi dinañu bind ci suuf lañ ca gis ak lañ ca dégg ak ñu ko tàmbalee yëg-yëg gi ñu am ci yëf yi nee naa la fa format soo ko amee rek euh, na koy def mooy 18 heures heure goûter nga daal di jël sa benn kaas rek bu mag def ci ndox mu simple bu mu tàng nga daal di tibb sa kudd rek yëngal daal di ko naan mu mélange bu lépp nekk nga daal di ko naan sooy tëdd nag soo reeree ba pare bay waaje tëdd nga jëlaat beneen kaas muy deux verres yow su sa bopp soo ko defee di nga sentir ne fa format bi daal baax na fa ñëpp mën nañ ko jëfandikoo jigéen ju wérul mën na ko jëfandikoo jigéen ji nàmpal mën na ko jëfandikoo ku ci nekk si ñoom mën na ko jëfandikoo ndax amul effet secondaire euh, tout est naturel kon yow mi seetaan ak déglu 8000 francs lay jar 1 kilo 200 nga daal ko mën a am ci tund yi nga xam ne seen cabinet bi yor rax ma fa am na fa boo dee Saint-Louis Réfane Kidira Tamba Mbour Thiès Pire Louga Diourbel Touba Mboro Kébémer Gambie ba Casamance foofee yëpp mën nga daal di am li nga xam ne moom mooy fa format bi nga xam ne un kilo 200 ak cabinet bi kon yow mi seetaan ak déglu te di ñu soog a dàq yëf yaa ngoog su doonoon da nga feebaroon ba noppi am loo santiroon jeexaay ak fa forma di nga daal di noddantiku su dee yow tamit da nga bëgg tamit gisaat sa bopp ci anam yoo xam ni daanaka tëggaat ba nga xam ne forum fu ne ñu ne la ah sa waay macha allah ak fa forma bi tout est naturel kon yow mi seetaan ak déglu bul ko bàyyi jàpp ko cabinet Biorahma numéro 77 244 90 05 dañuy def ay livraison à domicile ndax am na si ñoo xam dinañu bëgg waaye fu ñu dëkk. ci ndakaaru euh, amuñu jotu génn ndax la ñu bàyyi ak du ñu am ku ñu dénk njaboot bi kooka su boobaa boo wootee 77 244 05 livraison bi dina dool ci 1500 kon 1500 foo mën a nekk ci ndakaaru ñu daal di indi sa fa format bi nga xam ne 8000 francs lay mbokk yi ñëwuñu foofu ñu daal di indiwaat beneen boo xam ni fa sirop ndax sirop day doon complément alimentaire bu naturel fa format sirop day doon loo xam ni rek ci ay fruits la nga mën ko jël 30 minutes avant nga 30 minutes avant ngay rek fa format bi moom c'est naturel sirop boo xam ni macha allah ñu koy jaayee 7000 francs ngir mbokk yi ànd ak ñu di ñu seetaan ak déglu ndax boo gisee saa suñu ñuy fësal prix yi ndax dañu bëgg a tund woo dem gis ne li mu yëf yi prix yi benn lay doon kon sirop fa format bi moo ngi jar 7000 francs mbokk yi daal di ñuy daal di ñëwaat si beneen boo xam ne min ngeen ko mooy lèvre rose baa ngi ni bio bi lèvre rose ak cabinet bio rahma 2000 francs lay jaar ñu daal di ñëw ci li nga xam ne moom moo di euh, li nga xam ne moo di fenugrec bio vinaigrette 100 ml bio bi 3000 lay jaar su dee li nga xam ne moo di ak bi li moo ngi jaar li nga xam ne moo di 3000 euh, francs kon yow mi seetaan ak déglu te di ñu bàyyi xel ñu daal di ñëwaat ci beneen boo xam ni rek baax na lool. woon naa leen fii savon ngeer ngeer gi wax naa njariñu ci nekk ndax ñi may suivre ci youtube bi ñu may fii ci bi def naa ci vidéo spéciale wane ci ngeer bi ngeer bi saabu bi ne naa la protection la saabu bi day dax lépp lu jëm seytaane saabu bi day toj liggéey saabu day def lu bari saabu ngeer la mu ngi jar 4000 francs kon yow mi seetaan dafa dégg lu daal di ñëwaat indiwaat beneen boo xam ni ñaari saabu lañ ko tuddee saabu bi mooy savon jongama savon jongama saabu la boo xam ne dalay jox teint bu rafet su dee nit ki dafa xees ak teint jongama bi daf koy maintenir su dee nit ki dafa maron ak teint jongama bi bu marron bi daf lay maintenir ndax nee naa la jigéen day ñuul wala mu xees jigéen day xees wala mu ñuul ñaar yëpp baax na li gën a am solo rek mooy boo ci la ci borom bi nattoo rek maintenir ko sàmm ko aar ko ba du gaañu kon teint marron chocolat noir bu jongoma baa ngi nii teint baa ngi nii bu jongoma baa ngi nii ndax kii dafa xees bëgg na jëfandikoo lu xees kon bii nii yii nag moo ngi jar 3000 francs ngir yombal ko askan wi ngi nga xam ne GP yi ñoom tamit dañuy bëgg ñu jàpp ci ndax mbokk mi nekk tugal bëgg ay saabu yenn saa yi poids bi ak bii dina mën a jël 5 ak bii dina mën a jël 10 ak bii dina mën a jël 8 kon mbokk yi bokkoon na ci li ñuy di ñu di waat bi nga xam ne moo di euh, capillaire bi saabu euh, bi mooy crème cheveux bu mag bi bi nga xam ne moo di 300 grammes la 300 ml muy 300 grammes boo xam ni bëgg nañu bii moo ngi jar 4000 francs moo nekk ni mooy bu mag bi nga xam ne ñëpp mën nañ ci laal ñu daal di ñëwaat indi li nga xam ne mooy Rhumatop 2 Rhumatop 2 mi noon ngeen ko muy complement alimentaire goo xam ni dafay dimbali nit ki ci lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllu tànk guy metti muy complement alimentaire boo xam ni dafa baax ci wàllu nerf cher bi muy xam ni réglement plan alimentaire boo xam ni ndigg guy métti tànk yu métti wala yeneen yoo xam ni luy métti la moom bii lépp luy douleur wala noddanti yàq yenn saa yi nga jeg jékki def soog wala nga sentir benn métti boo xam ni doo xam lan la rhumatop baa ngi nii moom baax na ci lool muy rhumatop boo xam ne waxoon nañu prix bi muy rhumatop 2 muy jar 7000 francs muy 30 complément alimentaire kon yow mi seetaan ak déglu te di ñu bàyyi xel li bokkoon na ci li ñu ni woon tey dina wax ne téléphone mooy 77 244 98 05